Euh, gis nga ministère de l' agriculture nee naa si euh, li euh, li ñu am ren seen chance proposition bi ma wax sànq sama intervention boo xoolee ren nawet bi président yi yokku na sur le budget vingt milliards c' était carré ça fait soixante milliards boobu yàlla def na ya ndox am mais dafa am beneen point boo xam ne nit ñi dañ koy fàtte résilience bi mooy euh, kit alimentaire yi ñu jox euh, euh, tout ceux qui sont bénéficiaires tous ceux qui sont inscrits sur le registre national loolu tax na ba pan ci nawet bi kenn demul di ut li muy lekk ñëpp am nañ lu ñuy lekk surtout ñu new doole yi waa les paysans pour pour pour mën a béy loolu moo tax ma ne dama proposé ministre bi kit alimentaire yoo xam ne ne 65000 la woon nañu indiwaat kit alimentaire yu 40000 pour que nawet bu jotee ñu jàpp rek dimbal ko paysans yëpp comme ça kenn du tal. kenn du dem leneen wala bu xëyee le matin du uti leneen lu kii li mu indi njaboot bi mais am na déjà li muy comme comme ren kon comme ça euh, yàlla su defee euh, taw bi euh, taw bi am dinañ am vraiment que que que un bon rendement encore meilleur que cette année. voilà et wax naa tam ci encadre parce que encadrement yi fi am boo xoolee soo société nationale am nañu ay système ay ay ay nañ ko war a boole jël lépp jox ko encadre. ANCAR nekk vraiment si organe boo xam ne moom mooy war a encadrer accompagner les paysans loolu tam loolu tam dafa am solo <laughs> wax naa tam ci siège pour SODAGRI bi néew nañ dinañ ko ko euh, tabax daaw laaj naa ministre bi laaj naa ministre des pour que ren pour ñu ñu mën ko tabax euh, wax naa tam ci euh, un projet structurant pour Vélingara parce que boo xoolee Vélingara c'est un versant sud Euh, ci ginnaaw dëkk mooy vallée bi fa nekkoon ñu revitaliser ko cest ñu gas ko pour ndox bi bu bu ñëwee mën na dem directement ci vallée bi te pendant pendant li pendant la saison si ñu man jigéen ñi mën def ay contre saison comme ça day day day wàññi inondation sur certains quartiers de Vélingara mooy quartier côté Thiankan wala quartier côté Vélingara Fulbe ak Marebe euh, noonu laa ko tënkee di di gërëm ministre parce que euh, ku ku ku ku ku am ya ku am teggi na ku am respect ci ci doomu aadama donc c'est quelqu'un di boo xam dafa simple dafa respecté nit ñi dafa fonk nit ñi day déglu day waxtaan ku mel noonu bu ñu ko amee ci ministère ku nekk dem mën na ko xelal loolu vraiment dina amal njëriñ comme cette année ñaan nañ ñaan yàlla li ñu am ren incha allah ne année prochaine ñu am lu gën li ñu am ren ci ci ci ci production et surtout ci ci ci ci ci nawet. Euh, ñu gis ne yaa ngi wax Vélingara Vélingara nag moom fi mu toll nii euh, ci wàllu mbay mi euh, lan nga ci mën a wax tey. sant yàlla rek sant yàlla parce que. xam nga Vélingara c'est un département rural donc mbéy mi vraiment macha allah sant yàlla dañu war a gën a sant yàlla euh, euh, gërëm gouvernement seen gërëm président de la euh, ñu ngi ci récolte ñu ngi ci ci commercialisation dispositif léegi fii ak deux semaines dinañ xool dispositif bi mu ñu fa def est-ce que dina baax wala du baax parce que temps en ce moment la la lañ mën a ko mais de toute façon prix bi ñu def ren deux cent cinquante francs pour xam ne day yokk vraiment pouvoir d'achat paysan yi. bu yemoon ci deux cent et quelque deux cent dix ngi koy jënd ay trois cent loolu day yokk pouvoir d'achat paysan bu yokkee pouvoir d'achat parce que boo xoolee ren région bi ni ni ñuy sauver mooy mooy l'agriculture loolu dafa am solo pour pour bu ñu yokkee pouvoir d'achat producteurs yi ba pouvoir d'achat les paysans xaalis bu bari dugg ci àll ba vraiment loolu dina yokk dina dina yokk développement bu bu Sénégal. ñu jëm ci élection locale yeeg législative yi bien vrai que nag xamaguñu date bi waaye lan ngay waajal waa Vélingara. bon élection locale yi xam nga actuellement euh, dañu am euh, le dialogue national ñu ngi ci ñu ngi koy waxtaan euh, ministre bi lente nee na ñu ngi def si si ngi sélectionné cabinet boo xam ne moom mooy def audit fichier bi parce que opposition ñoo ko réclamé majorité bi nangu ko dañ ko fait une audit kii kii audité fichier bi sur place et sur pièce loolu loolu loolu la ñuy xaar loolu bu ñëwee ba lépp pare ba ñëpp d'accord en ce moment ministre bi wax na ko dinañ dinañ waat date boo xam ne ne dinañ mën a élection te élection bu ñu génnee ci élection yi du am contestation parce que objectif mooy nañ waxtaan nañ jubóo ci ci ci ci ci ci ci règlement bi ñu tànk tënk ko ba pare lii la ñu war a def ñëpp d' yi bu ñu fa demee ku amul ndam da xam ne ne vraiment population bi moom moo amul confiance ci yow te lu vraiment loolu day dooleel Sénégal day renforcer démocratie Sénégal waaw. lan mooy sa dernier cadre. di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla génne mbas bi ci ci Sénégal génne ko ci àdduna bi yéen tam yàlla na yàlla jàppale parce que presse bi dañ leen war a dañ war a rendre hommage li ngeen def ci mbas bi li ngeen def ci sensibilisation ngeen bàyyi seen programme bàyyi seen su publicité bàyyi seen lépp tey vraiment seen ci gaal parce que rang bi Sénégal am deuxième sur le plan mondial presse bi euh, que am na ci wàll bu am importance maa ngi leen gërëm di leen